tey am nañu mbégte bu nu xam fu mu commencé waaye balaa ñuy door xam naa foofu la waroon a commencé sax xëy na mbégte mu ëpp moo di jàpp ndax ñun borom kilifa lañu te sunu kilifa ci xadara maam Alaaji Malick mooy Serigne Babacar Sy Mansour ñu ñaanal ko yàlla gudd fan ak wér ñaanal ko lii mu naal ci jumaay maamam ji yàlla ko yàlla may doole ak ba nu ubbi ko mu julli ceeg jàmm ak ñun ñëpp waaye mbooloo mi tey am na ku taxaw bërki démb ni moo kuli am na ku taxaw bërki démb ni mouvement bi yëgul ni am na am na ñoo xam ni bala ñuy woo doomu aadama bu buñ génnewul ay million teg ay jakartaak lu ne pour naxe ko doomu aadama yi duñ am fukki ñun nag yàlla dogal na joxunu kenn dërëm génne woon ay millions waaye yàlla dogal na Ramon mii ma àndal moom rek bu woote woon mu feesal stade Tivaouane moom Ramon ndax ku ne xam na Ramon taxawaayam ci Tivaouane ndax Ramon mook waa Tivaouane ci tabaski yi Ramon mook waa Tivaouane ci korité yi Ramon mook waa Tivaouane tamxarit Ramon mook waa Tivaouane 31 décembre Ramon mook waa mouvement associatif 100 pour cent de Tivaouane final bu ñu organisé ren Ramon Sokane moo ko